département cees yëpp moo fi teew ndax ki nga xam ni mooy Babacar dembale nga xam ne moom moo nekk suñu tête de liste ñu investi ko ci niveau département bi meeting bi ñu organisé fii meeting national la ki nga xam ne moom mooy monsieur Khalifa euh, euh, Diouf di secrétaire général bi yàlla dafa dogal moom dafa làqu mais le coordonnateur bi nga xam ne moo nekk tête de liste national di monsieur Issa sal moom moo war a ñëw fii tey ñu ngi jóge dakaar jaar Bayax war a jaar Kër Moussa war a jaar 50 wàcc si Pout dugg Pout génn bi mu ñëwee ba Thiès waa Thiès yi ñu ma àndaloon ñu jógee Pout ñoom ñoo ñëw arrivé moom dafa da continuer def Jobaas mais mi ngi ñëwaat léegi su paree fi nag day continuer dem Tivaouane dañuy ànd ak moom jaar aboni ay Nina Fall jaar biir Balabé jaar na Fall génn ba génn ko dëkk bi bàyyi ko moom mu dem Tivaouane ñun ñu soog ñëw donc loolu mooy suñu mitinu tey ñi fi daje nag ci biir Thiès ak ñoo xam ni ñu génn ci ci Jobaas fu ñuy wax ay Noto fu ñuy wax ay Kër Jëmm Jaay fu ñuy wax ay Kisan fu ñuy wax ay Mbombay dëkk yi nga xam ne ay dëkk la yu nekk ci biir ay village yu nekk à côté ñoom ñëpp ñëw nañu mais ba ni ñu ko waxee sànq Pout Kër Mousso cinquante euh, ba Bayax ñoom ñëpp dañu mobiliser wu ñëw ci mitin bi nga xam ne mitin national la pour que lan vraiment mu nekk benn meeting boo xam ne pour la première fois parti de l'unité et de rassemblement ko fii ci biir Thiès ci promenade de Thiès waa waaw parti bu bees la ci waxin mais du parti bu bees ndax bari na parti yu ko gën a siiw te moo leen njëkk a juddu depuis 1998 la parti bi formé la ñu formé parti bi bi ñu ko forme ñu dem congrès université du Sahel bi ñu defee congrès boobu ci la ñu fale woon Serigne Moustapha Sy moom mu nekk président wu parti bi dañ ko fal démocratiquement à l'unanimité ñu proposé ko ñëpp d'accord ni mën na nekk président wu parti bi loolu moom moo tax sëriñ bi nekk président wu parti bi mais benn yoon lañ dem la ñu def action politique en 2000 ñu dem ci ay élection bañ ci jógee ba léegi nag parti bi dañ ko bàyyi woon noonu mu tëdd mais élection yi ñu dëgmal nii ñu bari ci la ñuy soog a xam ne parti bi dafa ne parti bu bees la mais du parti bees parti bu yàgg la ah? waa yaakaar mooy li laaj bi mu laaj léegi yaakaar est-ce que am nañu yaakaar ci am ay député weesu nañu am yaakaar weesu nañu am yaakaar ndax itam euh, militants yi nga xam ni ñoo nekk ci parti bi duñu ay militants yu bees yoo xam ne dañ koy dajalaay dafay nekk démb tey soog a ñëw booleeg nag bi parti bi jógee ñi nga xam ni ay nit lañu yoo xam ne bu ñu gisee lu am yaakaar dañ ciy dem li ci gane si kenn mënu laa wax nu mu toll parce que tellement kii nga xam ne moom mooy président bu parti bi na leen ay programme doy na leen liggéey bi mu liggéey avant que muy taxawal parti doy na leen moo tax bi mu taxawalee parti nit ñooñu bi ñu yëkkatee parti bi ñu jóg songu parti bi ñëw dañuy bokk si ci parti bi donc loolu mu ngi moom moo tax suñu yaakaar dafa dëgër. Euh, euh, pencum ndaw réew mi la fay yóbbu ay baat mooy ñu voteel la te jàpp nañ ne bu ñu demee ci urne yi bu soobee suñu borom incha allah bu ñu demee le 30 ci ngoon. dinañ xam ne parti de l'unité et de rassemblement du moroomu parti yi loolu nag suñu kanam nekk nekk suñu ginnaaw moo tax yàlla na yàlla may fekk ak tal bu boobaa ñoo xam parti bi mooy ban